numéro 11 2021 mooy modifier loi numéro 65 61 du 21 juillet 1965 code procédure yéenekaay gi nee na ñaari projet de loi yëpp nag dafa jëm ci tengal maanaam yokk daanu ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum terrorisme moo tax ñaari projet de loi yooyee ñu koy voté tey jii sa assemblée nationale waaye nag ñi nga xam ne ñooy bi ñoom gisee wuñu ko noonu dañoo jàpp ne manifestation yi nga xam ne moom la ñuy amal ci réew mi moom la Macky Sall bëgg a tere ak nag résistance bi nga xam ne moom la ñuy woo askanu Sénégal ngir ñu résister ngir Macky Sall bañ a am ñetteelu mandat moo tax Macky Sall bëgg li nga xam ne mooy terrorisme bëgg na xañ àq wi xam ne lu nit def ci réew mi rek ñu ne la yow daal acte terrorisme nga def aji mbergaan kanute ci yéen kaay gii di vox populi nee na député yi nga xam ne ñoo bokk ci kujje gi jamono ci dañuy jouer théâtre Abdoul Mbaw nee na nag député yi nga xam ne ñoo bokk ci kujje gi jamono ji nag dañoo bëgg naxasal li nga xam ne mooy xelu askan wi maanaam bëgg leen a fowe di def ay manipulation waaye nag li nga xam ne ñoom Ousmane Sonko ñoo ngi koy wax amul lenn loo xam ne dëgg la ci réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na Macky Sall ñetteelu mandat bi nga xam ne moom la bëgg moo tax daal léegi lépp lu waay def rek mën nañu laa jàpp na la yow ab terrorisme nga maanaam boo fi defee sax trouble à l'ordre public wala nga def violence wala sax manifestation am débordement am kuñ fa jàpp na la yow ab terroriste nga képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi di woote résistance mën nañu laa teg loxo na la kaay yow ab terroriste nga képp ko bind ci réseaux sociaux yi loo xamante ni maanaam mën naa yee fi na sax wala ngay woote résistance wala ay rassemblement mën nañu laa jàpp na la kaay yow ab terroriste nga Ousmane son nee na képp ku fi nekk tamit di wax askan wi wàcc leen ci mbedd mi mën nañu laa jàpp na la yow ab terroriste nga lii nag li nga xam ne moom la ci Macky Sall jublu bëgg nag tiital ñi nga xam ne ñooy askan wi bëgg a xeex àq ak yelleefu askan wi Assane Samb xëy jël xalimaam nee na en tout cas ñaari projet de loi yi bu ñu ko voté nañu jàpp ne Sénégal léegi bokk na ci réew yi nga xam ne deltu nañ ginnaaw bu baax a baax ci lu jëm ci wàllum démocratie te nag lii c'est très dangereux réew sax képp koo xam ne am nga fi xaalis ñu ne la justifier xaalis bi soo ko mënta mën nañu laa wax yow ab terroriste nga yéen kaay gi ne na bëgg a jël prétexte na damay xeex terrorisme bëgg nag xeexaale ñi nga xam ne ñooy say adversaire politique bëgg a noot saw askan loolee nag baaxul ci démocratie yéen kaay gi ne na ñi nga xam na ñooy opposition bi démb janoon nañu ak tas koo yi nee na ñu nag tey jii danañu wàcc ci mbedd mi ndax lii scandale dëggantaan la maanaam assemblée nationale la ñëpp woo nañu leen fa ngir ñu nag taxaw nag ngir ñu bañ a li nga xam ne mooy loi yi nga xam ne Macky Sall daf koo jël bëgg nag taafantaloo xeex terrorisme ngir li nga xam ne daal mooy ay rassemblement ay manifestation du samay kàddu kàddu yi opposition bi la Serigne Bara du nee na nag lii nga xam ne mooy loi yi Ousmane Sonko ci boppam la lépp nag visé moo tax ñu bëgg koo gaawala yéen a kaay gi de la na nee na nag léegi na leer ci bopp askanu Sénégal gi képp koo xam ne nag nee nañu daal bu leen manifester nga woote ab rassemblement maanaam yow mën nañu laa téye na la nag da ngaa def nag acte terrorisme yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy opposition bi tey jii danañu jokkoo ak waa conseil constitutionnel libération yéen a kaay nee na ajjumee tey jii nar naa tàng jër te mooy yéen kaay na maa la ko wax Sud Quotidien nee na député yi ñoom daal nee na ñu nag tey ji daal na askan wi génn nag ñëw assemblée nationale ngir nag ñu amal fa ay manifestation yéen kaay gi de la Soleil ak réew mi Quotidien wax ci nag projet bi nga xam ne jëm na ci mbalit mi nekk mbëbës ni ki démb Macky Sall daan nay lancé li nga xam ne mooy projet bi yéen kaay gi nee na nga xam ne moo ko tax a jóg daal mooy defar mbalit mi ba ñu mën koo jëfandikoo lu toll ci cent cinquante centres danañu ko tabax ci lu toll ci cent trente huit communes ci biir réew mi yéen kaay quotidien xëy dañu xibaar naa ñu ñaari feccikatu Wally Seck yi di Ameth Thiou ak Amady Badiane jamono ji ñoo ngi ci ab garde à vue waral bokk na ci plainte bi nga xam ne waa ONG Jamra def nañu ko ndax ñaari feccikat yi dañu doon foonante yéene kaay gi nee nañu démb ñoom jéggalu nañu waaye nag jéggaluñu leen dañu leen a garde à vue Wally Seck démb yeex nañu ko bàyyi yéene kaay gi di sunu làmb ñu koy fekk fa Malal Ndiaye mi nga xam ne ay jamono nekkoon na champion d'Afrique nee na ki nga xam ne mooy Ama Baldé ngir mu daan Modou Lô il faut mu jël coup société